أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf carreau li ci gën a neex mooy Taïf carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf carreau nee maanaa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau de wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. Lion de Guédiawaye Balla Gaye ñu ngi lay char bu baax ko ci Bakary Niass yi ñu ngi may laaj état wu Balla état wu Balla état wu Balla état wu Balla mais bala Gaye gars yi nag xam nga ñoom dañ koo tàmm gis Balla Gaye bu dem ñëwaat toll ni il ma dëxëran mais Balla Gaye bii laa gën a wóolu bu dem ñëwaat ba na muy demee noonu la ñëwaatee ça veut dire Balla Gaye bi intérieur bi la liggéey liggéeyut extérieur bi des na mais Balla gis naa la nga ñëw doo bi ci ginnaaw buñ jëloon xalima capp ci daa gi bind bind lu leer nañ gis doo boo xam ne nii macha allah Balla am na lu mu ci liggéey kon Balla entraînement yi ñu ngi dugg te li ci des bëri na kon Balla Gaye bu nekk à quatre-vingt pour cent Tapha Tine am problème waaye Tapha Balla gay mi ngi biir Sénégal gars yi gis nañ Balla bi wàcc ci avion bi fresh tol nu mu ko neex lamin boo fi nekkee wax ma waaye Balla Balla ñoom maam Ndiaye Savon yàq lañ dëkk bi Balla ñoom Fatou Laobé yàq nañ dëkk bi Balla ah, xaw ma de daal li cuuraay la de balayaay Sénégal te lii cuuraay la sooy wax ni moom la ngay bala lii cuuraay la buri bul ko laal bul ko jege bala demal nga nelawi kër Aziz Ndiaye bala même boo demee kër Aziz bul tëdd ci kaw laal bi tëddal ci suufu laal bi balla yàlla nañ lay euh, euh, nettali loo xam ne sa xol du féex waaw bul jege bul jege buri bu ko jege buri bul jege balla balla bul jege buri carrément lion bi mi ngi changé balla bu lekk maafe bu lekk domada bu lekk suppu kànja balla bu dugg ci yooyu bala gardal même alimentation bi waaye Balla dama xam ne xeetu cuuraay yii <laughs> Balla Balla cuuraay yii cuuraay yi yëpp muñ nag cuuraay yi moom Balla yii neex na muñ Balla nag Aziz lay def xaw ma nag nan lay def ak ñoom Baye Ndiaye nan la ci def pour retenir Balla Gaye parce que cuuraay yi bu fekkee ne man cuuraay na dama koy commandé à partir de Sénégal mu ñëw fi te man mënu ma koo résister kon gaynde gi yoonu géejawaay na la war a def waaw kon tey damay wax ni yéen ñi nga xam ne da ngeen a mën a takk yori kurus takkal leen ma buru bàcc li ba du bouger takkal leen ba du bouger Balla toll na ci cinq pour cent fii ak juillet Balla war naa mën a nekk ci quinze pour cent la laa leen wax kon yéen ñi yor kurus yi takkal leen ma buru bàcc li Balla Gaye yoru Sénégal attaqué la ma Balla Gaye Balla Gaye demal nga maris kër kër kër kër kër kër Aziz Ndiaye ah Balla parce que Balla énaal bi ngay ñu amaat Balla Gaye ba woon waaw bi man cuuraay bi tere na maa liggéey waaw tere te xam naa ni Sénégal am na cuuraay yoo xam ne ni dara daan tere dem entraîné ji bu ñu la waxee baal la def nga def ni genre mooy julli yooyu noonu tëdd naan maa ngi julli ci sama xel ay entraîné ci sama xel da ngaa yàgg entraîné sa xel baal la ah, jeex na léegi nag yaa ngi ñibbi sax de Paris ñëw nga vacance vacance bi nga ñëw vacance su cinq jours la pour faire sa signature de contrat nga dëppaat waaw xamal ni lépp luy saytaane lii moo ci njëkk cuuraay Serigne Ndiour waxal sa waa ji mu moytu cuuraay Serigne Ndiour waxal sa waa ji mu moytu cuuraay Balla Gaye lii cuuraay la te Sénégal dëgg yàgg nañu gën nañu dégg cuuraay googo léegi mujj lasar moo am cuuraayu mujj lasar ay eh, Balla Gaye nag da ngaa nekk préparation wu combat da ngaa war a denc soxot iñaan naan ah, ñu naan li yow da géejowaay <laughs> wala yéexut a résister Balla yii neexut a résister doomu baay yii neexut a résister doomu baay xam naa xam naa li ma la wax carrière yoral naa ko am na fooy toll yii nii bu la xeeñee benn yoon romb ne fiw nga commencé teg poids yi teg programme d'entraînement war a laaj maa fe daal laal zirik yooyu yëpp bala demal nelaw yu kër Aziz Ndiaye te bul nelaw ci kolal bi nañ dugal ci suufu lal bi lal bi nga war a fanaan bàllam waaw parce que état bi nga nekk nii état la boo xam ne nii état wu xiif la ku dundul tar ku dundul métti continuer ci loolu waaw parce que bu ñu gisee Balla Gaye di wax rek naan nii te nga xam ne mu leer la doole ji changé na doole jaa yéeg lu doole ji gën a yéeg Balla Gaye naan nii ah mu ne nii rek après def nii loxo yi nga xam ne Père Bogal Père lay ziar am <laughs> naan tawatin moom <laughs> tawatin moom. <laughs> Tapha Tine moom day ñibbisi bu ñibbisee <laughs> Tapha tamit mooy tul cuuraay li Tapha mooy tuul cuuraay li Tapha mooy tuul cuuraay moo tax ma ne mbër yi am leen seen fulla éloigné wu leen seen jabar yi garde leen seen même lekk bi ngeen doon lekk bi ngeen nekkee bitim réew waaw leer naa leen wax parce que ña nee na boobu la gowe yow ko xam gowe la su kanam waaw kon bàyyi leen ci xel ñoom am caarooy xam na luy gowe am caarooy ak rasul beraam xam nañ luy gowe fay ib xam na luy gowe waaw sama yi xam ngeen luy gowe lu leer laa leen wax kon am leen jàmm